asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di ziyaara te di leen nuyu nuyoob lislaam bu tedd boobu ci turu kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi ki nekk ci bopp bi di Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Mouhamadul Fadal am mboolem kilifa yi fi nekk yëpp ak euh, njabootu sëñ yi nga xam ne ñoo nekk fi barab bi ànd kook njabootu Serigne Chouaïbou bu Mbacké jotaay bu ñu tedd bu ñu yaakaar barke ñu nekk fi ak sëriñ Baara Roqaya di kenn ci njabootu Cheikh Habib Mbacke nekk fi ak sëñ Basiiru Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñi liggéey bi di jëwriñi daara yi taxawal fi seeni mag jiite liggéey bi bu nekk ci jataay bi ci sunu càmmoñ sunu mag sëriñ Alhaaji Mbàkke moom sëriñ Habibu ci sunu ndeyjoor sunu rakk sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Habibu muy liggéey boo xam ne njàngum alxuraan rek la ngir liggéeyee la ko sëriñ bi ci lim gën a bëgg ci barabam bii nga xam ne mooy Tuubaa di barab bi mu gënoon a bëgg di ko waajale bis bu tedd bii nga xam ne mooy fukki fan ak juróom ci weeru safar muy liggéey boo xam ne nag euh, yàgg nañ koo def ndax ci njëlbeenu xilaaf ak Cheikh Saliou Mbacké ci 1992 ci lañ jëkk def liggéey bi ci lépp ci sababu sëriñ bu tedd boobu muy sëriñ Saliou Mbacké ndax booba daare xay Habibou ji yi nga xam ne moom ngeen xam muy daare alxuraan ji ak daare xam-xam ji biñ ko toxalee ci kër gi def ko ci péncam mii nekk ci daaru Xudduus euh, gannaaw bi ñu tabax fa daara ju moo xam ne daaray xam-xam la te wax ko Serigne Salif Mbacke mu wax ne dana fa ñëw seet si daara yi ak indi fa ay ñaanam ak barkeelu si fa bis fa jàpp woon a ñëw nag boobu dafa fekkoon weeru safar teew bi mu fa waree ñëw bi ñu xëyee ñu ne kon nañ ko gàttandoo njàngum alxuraan ñu gàttandoo ko njàngum alxuraan dajale daara jëpp ñuy jàng ba ni mu fa ñëwee ak si fa mbaar ma toog fa nam ko waxee woon barkeelu fa waaye ñaanal nu fa itam barke ba mu demee nag ñu wax ne kon bis bii moom nañ jàpp ne saa bu weeru safar terootee rek nan seet bis buñ jàpp boo xam ne danañ ci jàng alxuraan ngir barkeeloo ko ci dikkam googu waaye jàng fa alxuraan itam ngir liggéeyal ko sëriñ bi ci bisam bu màgg bu tedd bi eh, ñaan ci it maanaam yëpp jariñu ci fu mën a nekk waaye ñaan ci ñi ñëw ci màggal gi ak ñi fi nekk di teeru gan yi yëpp suñu borom dafa leen jàmm ñu màggal ci jàmm ba li nga xam ne mooy ndog-ndog yëpp yi nga xam ne luy dog doomu aadama la suñu borom itam musal nu ci musal ci réew mépp ñu tàmbale ko ci 92 def ko atum ñaareel ma def ko atum ñetteel ma ci la sëriñ Bas mi nga xam ne mooy jëwriñu daara ji nag ñëw ci sëriñ Habibu ne ko nun kat am na liggéey buñ doon def boo xam ne njàngum alxuraan la moo xam ne boobu fa sëñ Saliou di ñëw dañoo dajale woon daara yëpp ñu jàngale ñu jàng fa alxuraan waaye ba demee léegi dañ ko far wéyal def bu safar rek njàpp bis boo xam ne dañ ci jàng alxuraan ngir liggéeyalu ko sëriñ bi ci waajale ko màggal gi ci bisam bu tedd boobu yi waaye nag mel na ci ak làmbatu wër lañ ko tegoon waaye nag danoo bëgg a am ndigal lu wóor bu fekkee ne noonu la ñu wéyal ko bu fekkee am na nee nu gën a baax nga ne nii moo a baax nu doxee noonu sëriñ abi bu ne fekkee da ngeen doon làmb day daj ngeen ndax képp kuy liggéeyal sëriñ ko Tuubaa te jaare ko ci alxuraan kon jaare nga ko fa mu gën a bëgg ku ko fa liggéeyalee kon nag li ma leen di digal mooy na ngeen ko saxal bu leen ko bàyyeeti te feek kenn nit a nga des ca daara ja na ngeen nañ koy na koy def daal di joxe ndigal loolu daal di tàmbali nag wéyal njàng moomu di ko woote nag di woo daara yi nga xam ni ñoo nekk Touba di ko ànd ak ñoom saa bu ñëwee nit ñi it ñëpp jàpp ci am ci positif lool bu ñëwee kenn ku ne lépp lu waaye man ci njàng da nga ñëw ànd koog moom def ko booba it ñu ngi ko wéyaloon di ko defee ca daara ji nga xam ne fa lañ ko tàmbalee woon nit ñi itam kenn ku ci nekk loo man ci ay bernde muy lu nit di lekk wala lu nit di naan loo ci man ci luy bégal doomu aadama danañ ko def andi ko ngir berndeele ko jàngkat yi kon nag loolu mooy liggéey bi ñu ngi ciy woo jullit ñëpp di ci soññi jullit ñëpp di xam ne loolu rek a tax ñu def ko jàng alxuraan liggéeyal ko sëriñ bi ci bésam bu màgg bu tedd bii ci dëkkam bu màgg bu tedd bii ngir jullit ñëpp itam fi adduna bi jariñoo ko waaye ñaan ci it am ci màggaluk jàmm ñii ñëw mën a ñëw ci jàmm tey dellu ci jàmm suñu borom musal leen ci tolof tolof yi ñi leen di tee ñi leen di teeru it noonu loolu mooy liggéey bi gannaaw bu ñu demee ba nga xam ne xëy na mbooloo mi wuyu si nañ te yaatu na it nag sëñ Basiru mi jëwriñu liggéey bi moo am xalaat yi toxal ko indi ko fii ci pencum sëriñ Suhaybu Mbàkke mi ngir gën koo fésal ak ngir gën koo yaatal ren jii nii di 2017 mooy ñetteelu at bu ñu ko defee fii ci pencum sëriñ Suhaybu woo ci daara yëpp ñu ngi sant daara yëpp ci nit ñu wuyusee ci biir jëwriñu liggéey boobu itam ñu dugal ci koo xam ne xamee na ak sëñ daara yi ñoo ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ren muy maam Omar Dia ndax xëy na moom itam doonul loo xam ne lu xamoon lu mu miinoon doon ko yëgee noonu la waaye ren teel nañ ko koo yëgal lool teel ko cee soññi teel koo xamal ne ko na ko yëgal daara yi nga xam ne ñoo nekk ci Mbàkke ak li ko wër jàpp naa ne lii département Mbàkke foofu daara nekk jël na tànkam dem fa yëgal leen ko soññi leen ci loolu itam doon na loo xam ne lu ci fës te gën a yokk bis bi la te gën koo taalal la kon daal ci li nga xam ne nii mooy euh, euh, euh, bis bi noonu rek lañ ko mën a mën a mën a waxee ku ko def ci barabu suñu soin bu bii itam defal nga ko koo xam ne ku bëgg alxuraan la ku ko yàgg liggéeyal la kon ci nekk loolu nga xam ne mooy doon bëgg-bëggu baayam wax nañ ne. Euh, ci jamonoy sëriñ Basiru mas naa toog diggante boo xam ne dafa gëj a gisee ak sëriñ Basiru jóge fi dem tiib fekk fa di ko ziyaara euh, bi mu yegsee bi ñu ko yëgalee sëñ Basiru bi mu yegsee bi mu ko nuyee li mu ko jox mooy mbaa jàmm la loolu tax a jóg mu ne ko xanaa gëj laa gis te xam ne loolu wër ñu ñëw di la ziyaar mu ne ko bul jógati ngir kenn ci nun liggéey boobee nga nekk doy na sëkk nun noo la war a fekk si waaye war fekk kenn ci nun ndax li sëñ Tuubaa gënoon a bëgg te digaloon nu ko yow mennum yow yaa ci nekk ci nun mooy toog ca dëkkam boobee fa Tuubaa bu tedd ba tey jàng alxuraan te di ko jàngale loolu la mu santoon nun ñëpp mennum yow yaa ko ci def noonu ma ko santaanee kon kooku nag ku ko fayee ñëw fii ci wetu barabam bii ci pencam mii dajale fi mbooloo mu toll nii ñu fas yéene yendoo jàng alxuraan ba tisbaar ba julli tisbaar berndeel doomu adama yi yeewee ngir waajal ko màggal gi liggéeyal ko sëriñ bi nañ ne su boobaa kon delloo nga ko delloo nga ko mu nekk fi ak ki nga xam ne mooy soppeem ba di mbokk ma ci lépp muy Cheikh Abibou Mbacké kon noo ngi ñaan liggéey bi mu nekk addiyee joo xam Sëriñ Tuubaa danoonu ko nangul waaye jotale ci ñoom ñooñi nga xam ne ñoom la nekk seen wet waaye jotale ci njabootu Serigne Touba waaye jotale ci jullit yëpp ndax yëpp jàpp nañ ne ñëpp xaj nañ ci euh, kon nag euh, loolu la ñuy tënke kàddu yi ku baax salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar fi kulli sayrin wa fi safar hamaani